أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokki bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci jullik fay faat julli la goo xam ne nag euh, boroom xam-xam yi am na ñenn ci ñoom du ñépp nag ñenn ci boroom xam-xam yi ñoo ko tegtal jullit yi mu doon loo xam ne jubluwaay bi mooy su ki amee ay waxtuy julli yu baree bari yu ko faat mu julli julli gi ngir mu kafaaraal ko ngir mu faral ko bàkkaarub waxtuy julli yooyu nga xam ne moom la faat xam naa nag werante bari na ci ci wér naag wérut yu mel noonu loolu nag mook diine ànd dama naan sax mook xam-xama ànd bu ko defee nag lu mel ne julli fay faat wala lu mel ne solaatu tasbiix wér naag wérut ak yooyu yëpp moom ay werante bari na ci waaye ala kulli xaalin comme yaatal xeltu yin moom day yaatal rek ñu ne nañ ko jéem a indi e, ngir ku ko soxla rek man ko fee fekk bu ko defee nag ndax wér naag wérut ak débat yu mel noonu am na ñoo xam ne ñooy le voies autorisées pour mën a wax ci loolu euh, mbokk yi ñi koy saxal dañ ne jële nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne koo xam ne dafa am ay bori julli yu bëree bari yu ko faat ba xamatul sax lim ba ñaata la wala sax su xamee lim ba bari na bariwaay boo xam ne daal ngir mu fay ko dana metti ci moom lool naxaar ba àjjuma ji mujj ci weeru koor gi kon jullik fay benn yoon rekk lañ koy mën a def ci at mi jullik fay faat benn yoon rekk lañ ko mën a def ci at mi te mooy àjjuma ji mujj ci weeru koor àjjuma ji mujj ci weeru koor ci ban waxtu ci bépp waxtu woo xam ne dagan nañu naafile ca waaye nag am na waxtu wu gën waxtu wi gën mooy ginnaaw tisbaar ba tàkkusaan maanaam diggante tisbaar ak tàkkusaan diggante tisbaar ak tàkkusaan xëy na diggante 14 heures ba ay 17 heures waaw wala su fekkee 13 heures lañ koy julli diggante 13 heures ba 17 heures maanaam daal diggante tisbaar ak tàkkusaan waxtu woowu moo gën ñu jullee ko ca donte nag bépp waxtu woo xam ne dagan nañ ñu naafile ca rek mën nañ ko caa jullee euh, su ko defee euh, su koy julli ginnaaw bu jàppee ba sell bala moo kàbbar day yéene bu yéene nag lii lay wax danaan nawaytu an usalliya arbaa rakaatin kafaaratan lima faatani min assolaati maanaam boo koy julli danga naan fas yéene na maa julli ñeenti rakka ñeent moy quatre quatre fas yéene na maa julli ñeenti rakka yi ngir mu faral ma bàkkaarub bori julli yi ma am ngir mu faral ma bàkkaarub bori julli yi am lu am solo la su ko defee nga daal di kàbbar mbokk yi julli gi ñeenti rakkaa la jullik fay faat ñeenti rakkaa la muy kaat ñeenti rakkaa yi nag rakka bu ci nekk lañ cay jàng moom moroom ja ñoo bokk maanaam daal ñeenti rakkaa yépp lañ cay jàng lenn dong la waaw ñeenti rakka yépp ñoo bokk luñ cay jàng loolu mooy lan rakkaa bu ci nekk fatiha nga cay jàng fatiha mooy bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahimi ba ca wala dollin loolu mooy fatiha benn yoon fatiha benn yoon ginnaaw bu fatiha jàllee nga tekki suuratu qadr suuratul qadr mooy bismillahi arrahmani irrahim inna anzalnaahu fi laylatil qadr moom nga cay teg ñaata yoon fukki yoon ak juróom muy quinze fois quinze fois bu suuratul qadri jàllee nga teg ca suuratul kaw kawsar suuratul sar muy inna aataynaaka al kawsar ba saar wa jeex moom itam quinze fois kon ñeenti raaka yépp noonu lañ koy jànge waaw raaka bu ci nekk daal dangay jàng faatiha benn yoon faatiha benn yoon teg ca suuratul qadr muy inna anzalnaahu fii laylatil qadr fukki yoon ak juróom muy quinze fois ginnaaw ba nga tekki suuratul kawsar muy inna ataynaakal kawsar ba saar wa jeex moom itam fukki yoon ak juróom muy quinze fois euh, liñ ciy leeralaat mooy ci biir ñeenti ràkka yi itam boo jullee ñaari ràkka yu njëkk yi da ngay taaya sëlmal soog jógaat indiwaat yeneen ñaari ràkka yi yu mujj yi daal di taayal sëlmal mu jeex kon daal ñeenti ràkka yi diggante ñaari ràkka yu njëkk yi ak ñaari ràkka yu mujj yi ab sëlmal da leen di séparé dangay julli ñaari ràkka yu njëkk yi dal di taayal sëlmal soog a jugaat indi yeneen ñaari ràkka yu mujj yi taayal sëlmal sëlmal bu mujj bi mu daal di mu daal di jeex beneen bi itam mooy ràkka bu ci nekk la nga jàng muy faatixa xaji ak eh, inna anzalnahu fi laylatil qadr ak inna a'taynaka al kawsar da nga koy yellu da koy yellu muy lan da koy wax ndànk da koy wax ndànk waaw loolu itam lu ci jara bàyyi xel la doo ko biral kon defe naa leer na eh, soo jullee ñeenti rakka yi muy quatre rakka yi soo ko jullee ba mu mat tabaarakallaahu bëgg nañ nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam téeméeri yoon muy cent fois kon soo jullee ñeenti rakkaay yi muy quatre rakkaay yi ba sëlmal bala nga jóg ci jotaay bi nga sëlmalee jotaay bi nga doon jullee dañoo bëgg nga def fa solaatu ala nabi téeméeri yoon muy cent fois julli ci yonente bi sallallahu alayhi mbokk yi solaatu ala nabi nag anam yiñ koy defee bëri na lool formule yi bëri na lool waaye ma wax leen ci bi gën a yomb te gën a gàtt te làmboona te mooy allahumma solli ala sayidina muhammadin wasallim allahumma solli ala sayidina muhammadin wasallim allahumma solli ala sayidina muhammadin wasallim loolu daal soo ko defee téeméeri yoon muy cent fois ci jotaay bi dina baax wala baneen julli ci yonente bi boo man rek baneen anam boo ko mënee moo xam solaatul faatixi la moo xam baneen la moo xam baneen la mbokk yi euh, jullik fay faat gi lu am solo la ndax ci ñi koy saxal sax am na ci ñoo xam ne dem nañ ba ne Seydina Abu Bakrin Siddiq nee na jullik fay faat dina faral nit ki bàkkaarub ñeenti téeméeri at yu julliwul muy quatre cents ans waaw ñeenti téeméeri at yu nit ki faat ay julli am na ñu ne Seydina Aboubacar as-Siddiq radiyallahu anhu nee na jullik fay faat dina faral nit ki bàkkaar bu tol noonu bàkkaarub ñeenti téeméeri at yu julliwul am ñu ne itam ci ñi koy saxal ne Seydina Ali karramallahu wajhahu nee na fay faat dina faral ki ko julli bàkkaarub euh, junniy at yu mu faat ay julli junniy at yu dund te julliwu ci dara jullik fay faat dina ko faral bàkkaar boobu euh, te junniy at nag dund ko yombul te itam loolu ñu nettali ne Seydina Abu Bakrin Siddiq nee na jullik fay faat mën naa faral ki ko def bàkkaarub ñeenti téeméeri at yu mu julliwul wax nañ ne mi ko nangoo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu itam précision bu ci am solo la waaye ala kulli xaalin bu mu tax kenn di sàggane julli ngir bëgg a laytoo am na pexem julli fay faat déedéet bu ko kenn def itam naagu jàpp ne aljannaam assuré na waaye daal damay jàpp ne sax nit ki su koy def na ci jublu jaamu yàlla rek même su amuti bori julli itam na ko def rek jublu ci jaamu yàlla te su ko defee itam na gën a farlu ci jaamu yàlla ndax kat képp ku koy laytoo rek ne naa sàgg sàggane julli bu ma toogee ay at julli julli fay faat xamul kañ lay faatu tey wala suba wala ginnaaw suba waaye itam yàlla itam coobareem dafa yaatu lool ak sañ-sañam loolu daal lañ ne woon nañ ko ci yokk di wax mbokk yi ñu abonné bu baax ci seen YouTube bii di yaatal xeltu yin di seetaan suñuy vidéo di commenter di aimer jaa ngeen jëf wasalaam